is this? na élèves yi doxalee nag ñenn sax ci ay jàngalekat di gisee ni nag ñoom ci seen yelleef la ñu toll bu ñu waxee nii ndaxte nag lépp li nga xamante ni tamit moo soxal dellu sipp njàng mi ci wàllu daara yi dañ ko war a bungeek ab plan boo xamante ni plan d'accompagnement lay doon waaye tamit lépp lu soxal tamit biir CUSEMS tamit Mamadou Mbodj war nañ ko wàccee loolu nag di gis-gisu ci ñenn ñi nga xamante ni ay jàngalekat lañu ñu teewlu ca ñoom Mamadou Ndiaye ci micro suñu natango Maam Ndiawar Diallo comprendre nañu bu baax li nga xam ne nii moom la élèves yi wax ay élèves lañu naam waaye it ay boroomi xel lañu parce que xel mënta nangu ñun enseignants yi ñu ne dañoo nekk ci grève pendant quatre mois ñeenti weer jëm juróomi weer nga xëy xëy nga ne da ngay lever mot d'ordre wala da ngay suspendre mot levée moo d'ordre wala suspension moo d'ordre boo xam ne nii associé woo ci élèves yi associé woo ci parents d'élèves yi mieux encore da ngaa falsifier ay résultats ne enseignants yi ci seen majorité ñoo demandé enseignants yi demandé wuñu dara parce que enseignants yi jotuñu dara parce que enseignants yi seen problème bi ñu doon ñaxtu kenn réglé wu ko gouvernement bi wuyuwu leen ci monsieur Mamadou Mbodj ak ñamu àndal jël. seen décision ne dañuy suspendre mot d'ordre suspension mot d'ordre boo xam ne ni enseignants yi parewuñu pour accompagner loolu mooy que du ñu def rattrapage du ñu def cours de renforcement te yan juillet nga xam ne mooy délai bi nga xam ne mooy délai bi njàng mi di jeex ñoom nee nañ buñ ko atteindre duñ ci yokk duñ ci wàññi. waa loolu du sacrifier élève yi donc moom na jël ay bagaasam mu bàyyi sunu syndicat on demande la démission du camarade secrétaire général Mamadou Mbodj le camarade secrétaire général Mamadou Mbodj a échoué dans sa mission il doit rendre les tabliers dañ koy wax kon ne ko na démissionné na bàyyi suñu syndicat